loolooy wax ji kon makal meññ bu ñu fontoo laa la wax bu ñu fontoo bu fekkee ne sponsor bi moo tax ngay dëmm dëmmulu ci kaw nit ñi di fërërër yi bu ñu fontoo te dinaa la ko waxaat man naa koy répété waat taatu yaraax daa bëriwul wax naa ak yow nangoo dégg li ma lay wax daqal nday journée bi nga bàyyi sa caaxaan yi lii lay wane ne yow doo professionnel yow mënoo tëgg combat tëgg journée ñaabu ndaw gaañ caatu yaraax am problème contrat ak yow nga ne yow par la force da ngay siisu teug ndey journée bi mais magan yow lan la sponsor bi mo yor sa vie doonoon professionnel bind requête dem gisee sponsor bi ne ko journée bi dama koy dàq ndax benn mbeur bi dafa blessé ki dañoo wara négocier waat contrat lu lay wàññi wala xaalis bobu nga xam ni sponsor bi da la wara dugalal boko ko ci période bobu noonu da ngay am ay fay ay bor yoy fay xam nañ ay bor kessé kese nga xam nañ da nga wara fay ay bor yi du jeex lolu ñun xam nañ ko bu yàgg. bala Abdou Lahad Ndiaye dugalee ci lëndëm ci looxóor fu mu dem leb fa ci sa turu papa dóor nday xaalis bi xam nañ loolu xam nañ li xew xam nañ ne dangaa war a fay xam nañ sponsor yi ñaata lañ la war a jox xam nañ ko arrête je dis arrête c'est assez arrête bàyyi leen sénégalais yi ngeen di jàpp di jouer ci seen nopp yi baleen li ngeen di def bu fi kenn dialogue kenn dialogue gu fi gaa yi doon jaar ci suuf yëpp ay dëmm nañ ay lañ ñoom ci makan la dem di far bu fi kenn jaar ci suuf nañ point de presse Vous tax yéen capable def point de presse def leen point de presse expliquer teg contrat ci table def leen ko du ngeen ko def def leen ko ngeen teg contrat ci table bi def leen ko du ngeen ko nangu parce que fi nga génn makan di wax ay waxi kasaw kasaw nga doon wax pour jouer ci nopp sénégalais et eh, les boys sont réveillés d'aujourd'hui eh fi, mouvement au Sonko bi mo fi ne wala xamoo ko Pastef bi mo fi ne cent pour cent booy dañoo yeewu leen nax ci mouvement au Sonko bi mo fi ne Pastef bi mo fi ne boy dañoo yeewu li fin. ñep feeñ na mënu leen ñew sol nday seeni seen i nday télé luma fi def sama bay lim fi def na na na di nawal di nelawal boy ne leen dundal li am lan la

dama ne bi amul beau frère bo xam ni day wër ci Sénégal di dóor ay visa yu dul jeex wax té nak man j'ai des preuves concrètes donc Makan arrête arrête ces conneries là arrête ces conneries là c'est assez bindal day sponsor bi ne wa sponsor bi hey journée bi dama koy avancer loolay wax mais yéen lan la lu tax ngeen bëgg ray nday carrière boy bi pour lan fu ngeen ko teg fan ngeen ko teg ay non day déglu Bakary mais mo tay déglu

nek leen ndey nit ngeen bàyyi seen caaxaan nek nekk leen ndey nit ngeen bàyyi seen caaxaan ba bàyyi leen booy yi ngeen jaay doole leen boy yi ngeen jaay doole bu lo jalle damay wax ne bakari l'ambassadeur de Tap Tap sen, Tap Tap sen jox nañ ma contrat bo xamne ni dina leen ci liggey liggéeyal bu muccu ayib waye ci misal bàyyi leen ci xel ci ben affaire du khalis momu fa yob fondation lay defar fondation bi may defar kep ko xamne ni yaangi tak ngemb ci lamb newoon ci lamb yaakaré ko ci lamb jëlon sa vie taylé ko ci lamb xaalis bañ ma tay fay dama len koy waxa mbeur yi am blessure yo xamné ni tay dañoo soxla ay fauteuil roulant tay dañoo soxla ay matelas yu ñu tëdd tey dañoo soxla ay opération lima wa tap tap tab seen di fay xaalis bobu dina ko récolter def ci fondation kep ko xamné ni nii utiliser sama code promo yalmin ñu jël xaalis bobu jëndee ko ay chaise xaalis bobu jëndee ko ay chaise roulante jëndee ko ay matelas jëndee ko essayer gars di ci def seeni opération pour dem faju Lolo tax ma nangou contrat bii sinon man namu ma nday coppa ndayam dara la namu dara dama len koy waxaat waye nag su ma dama len wax ne leen tap tap seen envoi d'argent bu gën efficace bu féké ni Canada nga né États-Unis boo utiliser le code promo de Yalmin doo fay dara njëg li yomb na gaaw na efficace na bu dee en Europe nga nekk France Angleterre vous faites quelque da ngay le code promo de Yalmin vous ngay fay dollars tout simplement Moi 2 euros sax la ñuy kon sama utilisez-le. tap tap sen, a le code Bakary Yalmin bi nga vous yëngal donc wax code promo tap tap sen. envoi d'argent bu efficace rapide ngeen vous ci le rapide. ma sama ñu daw ñi ngi ak ay blessure jëlone seen vie tay la ko ci lamb ñu avons len ci côté béké ñu jàppale Nous ci côté chaise roulante ñu des len ci côté matelas bu ñuy teud ñu côté ay côté médicaments yi ñu soxla ci côté opération yi nga ni soxla nañ kon sama Nous avons len ci avons Yalmin dama Nous koy waxat Nous avons ci ji pour tiaxan wala pour fo Nous lu may wax day leer jël contrat

Le premier écurie que vous savez, c'est lui qui sponsorisé. Je le sais, je vais faire des marches. Inch'Allah, vous allez voir le coach Bakary. Je suis venu pour le faire. Je suis venu pour le faire. Parce que les sponsors, je veux dire, ils sont venus sponsoriser l'école de lutte. des gens qui ont un job, entraîner, ils les font chaque mois. des gens qui ont à peu près 60 000 ou 70 000 francs par mois, juste pour entraînés. ngeen di sol yére yi nga xam ne nii moom mooy tap tap seen nee naa leen Bakary ay contrat am du ay négocier gars yi ba may wax ne dafa leer naññ dama leen wax man ñii laay doxee ñii laay doxalee bu ngeen bëggee ngeen jël